FMI aujourd'hui dafa taxaw pour que Sénégal wàññi déficit budgétaire am ramener ko à à à trois pour cent. Mmh. et pour ce faire. Mmh. FMI déjà nee na nañu bàyyi la subvention des produits pétroliers. Oui. Euh, daaw bi ñu wàccee wàññee une partie de la subvention mm -hmm. euh, sur l'électricité euh, gis euh, nga levée de bouclier bi mu jël dafa générer une augmentation de 16 pour cent euh, sur le prix de euh, l'électricité et notamment sur les consommateurs de la deuxième et de la ah. et de la et de la troisième tranche FMI yemul foofu Moustapha Ba bi muy dem daf fi bàyyi un plan d'action boo xam ne dafa waroon dem ba 2025 euh, ñu waroon a renoncer presque au 700 milliards yu ñu doon dugal euh, ci ay subventions mhm. euh, est-ce que dañoo war a topp FMI dans sa volonté wala est-ce que lacture régime dafa war a Eh, toppandoo yeneen régime yi nga xam ne dañ doon rebuffé wu par rapport à ça eh, dañ doon bañ a topp FMI sur ces sur ces injonctions là. en fait tout est une question de position xam nga aujourd'hui Sénégal bu ñu demee bay subventionné ça veut dire que l'offre énergie ne pas suffisante parce que si offre bi amee. coût bi day wàññi donc investissement yi ñu war a def sur le solaire soo defee solaire soo ci defee cinq cent mégawatts nga mettre en place benn dispositif boo xam ne bii tu fais une ligne d'exonération tu libéralises la vente solaire société yi gën a mag yi nga xam ne dañuy utiliser solaire nga ne leen da ngeen di effacer wu pendant les heures de pointe dañuy utiliser énergie Senelec dañu effacer wu pendant les heures de pointe mën nañu utiliser solaire mais en condition ñu jox la exonération yi war pendant cinq nga jël le thermique bi fi nekk nga ne sur mon budget je mets deux cinq pour cent cinq le temps ngay def sa gaz to power tu as renforcé ta capacité il y un renforcement capacité mais après dañu relâché wu ci solaire aujourd'hui yeggagoo foofu mais investissement yi ngay def sur d'autres projets di fa def ay milliards tu l'as pas fait sur ça donc c'est une situation difficile parce que ki lay lebal xaalis aussi bu la gisee chaque jour nga nekk ci xew yi di baatare day wax ne kii day fontu. mu laaj la xaalisam. bu lay subventionné yow nga jël xaalis bi di ko jox ménage pour ñoom loolu la c'est leur conception donc il faut nga renforcer sa capacité donc il y aura toujours une période boo xam ne bii on sera en difficulté tant que reprendre ñu suñu levier de financement yi. te loolu la sénégalais yi war a xam yàq bi fi gars yi yàq ak orientation bi gars yi jël ak leb bi ñu leb ak ni ñu foyee xaalisu réew mi ak suuf si nekk na dégâts boo xam ne bi kenn mënul tëb rek def ko il faut que mu am benn période boo xam ne dañuy jagal ñun dans notre programme on a prévu quatorze points yoo xam ne jagal la parce que gis nañu réew mi ni muy yàqoo ni ñu ko dilapidé même y a des moments on a on a fi jëloon nañu fi benn bateau quatre vingt milliards bateau bi mu ngi nekkoon fii ci booru port ci booru Gorée ñu ne dañuy day produire gaz ñu yóbbu ko énergie ñu yóbbu ko Senelec pour mu pour mu def fa gaz forage ba tey